solution ba ak seen xel yëpp dal na miel jàmbaar moo dalal xel yi mbokki mi da yàgg di wër garabu kattan ah mani lépp leer na yaakaar agsi na ak waa nasrul muminina garabu gàncax ñi nga xamante ni produit bio naturel 100 pour cent mooy moom yëf nasrul na moo leen indil miel jàmbaar miel jàmbaar mbokki mi mani li ko tax a jóg du leen lu dul wàllub kattan néew kattan boo ko amee jàppal ni sa garab goo ngi nii buy dem faneen agsi nga miel jàmbaar di garab gu baax loolu te efficace si wàllub kattan ak lépp lu gàllankoor si wàllub kattan moo xam dañ laa takk la wala rab jàpp la wala nga am tawat yaram dafay traité mbooleem tawat yi dal góor si wàllub sëy dafay dimbali jigéen bu baax a baax si wàllu plaisir mbokk yi loolee mooy miel jàmbaar ñu liggéey ko si lem petit cola jingeer huile d'olive huile xorompolé ginseng cannelle moo ñaale ko nag ak lenn si ay aya alquranul karim mbokk dama ni lii dara gënu ko wóor 100 pour naturel amul benn efe secondaire ndax nag dañ ko liggéey si anam yu jaar yoon produit la bu ñëpp nag mën a jëfandikoo mag ak gone góor ak jigéen disponible nañu saa su nekk Dakar woote leen gaaw si 78 445 04 79 78 445 04 79 miel jàmbaar daal mooy waaja ndax nag ñi ñamoon ñëpp xam nañu ni du moroom si yàlla noonu la jabaru Lamine bi ñànkee bakkanam ca anam bu doy waar bu yéeme boobu Lamine yuuxu na hôpital bi yëpp ginnaaw bi mag bi nga xam ne moom la àndaloon muy Issa Issa tamit jooy na fa jooy métti nekkoon na yaakaar ju tas ak naqar gu rëy gu fees dell seen biir xol ñoom ñaar noonu ndeysaan la xibaar ba siiwee Issa jël téléphone woo mbokk yi yëgal leen ko yuuxu yi ak jooy yi foo ay toll di ko dégg ki nga xam ne nag mooy jabaru Issa ji àdduna mel ni luy tukki moom bi mu jógee ne ndaw si dafa faatu dafa daanu daldi crise xëm waa kër gi jooy nañ lu yàgg door ko seetlu fi mu tëdd am ku ko gis ñu daal di koy sotti ndox mu jug Issa jaaxle woon na doon ko dëfal doon xalaat ne ndaw si dafa xam ndax dafa yërëm jabaru Issa ji jabaru euh, Lamine ji boobu moom lemin waayam la woon liy sellu woon ci seen mujj ñoom ñaar gis nañ itam ba jabaru Lamine ji nekkee hôpital moom moo fa nekkoon ak moom tax na kenn xalaatul lenn loolu rekk dafa am yërmande ci moom ci Lamine ak jabaram moo tax bi mu yëgee dese jabar ji. mu comporté woo noonu waaye fekk mbir yi am na leneen lu ne ci ginnaawam jabaru Isaa ji mel ni àddunaam day bëgg a tukki nag di jooy rek nangatul la lekk nangatul la naan mu nekkoon dëj bu métti ci fay boobu dawoon yaram lool nag yërëmtu woon lool jamono yooyu itam mama Khadija ma nga woon ca xew ba fa la fanaan ba ñu xëyee mu nekk ñoom Isaa nekk ñoom escabok ak jabar ji ak mbokki jabar ji ak yu mel noonu nekk ci wàccaay jigéen yi waaye foofu lañu ko woowee téléphone ne ko ñëwal am na lu xew noonu mu tàgg Escane ne ko dañ ma woo urgence Escane ne ko maa jàmm la mu ne xam naa su ma demee dinañ jéggante mu ne ko waa baax na noonu Escane daal di koy sant gërëm ko remercier ko ci taxawaayam bu rafet bi mu ko taxaw ci bisam boobu noonu la maman Khadija ñibbisee ci kër gi fekk fa xew-xew boobu moom itam jooyoon na ndeysaan yëf yi tri trisoon na lool Escane itam xibaar ba agsi woon na ci moom nekki noonu itam. noonu la ko ñëpp déggee noonu la ko ñëpp yëgee ci noonu nag lañu bàyyee néew bi ci hôpital bi fi nga xam ni fa lañu ñu denc ñi nga xam ne dañoo faatu dugal leen ci bërëb yooyu ngir fas fas leen yéene garder en attendant feeg mbokk yi di leen jël si ñu leen di bindal li nga xam ne mooy certificat de décès pour ñu mën ko yóbbu ci margo yi diggante boobu itam Lamine moom àndul ak sagoom dafay jooy rek di jooy jooy métti Issa ak yeneen frères yi ñëw taxawu ko jamono yooyu itam Escale moom itam bàyyi woon na lépp lu muy def ñëw ànd ak ñoom donte ne moom jot gi mayetu ko ndax nit ku siiw la te itam du mënti di taxawaale ci hôpital yi ndax nit ñi dañuy nekk di ko xàmmee ko ak yeneen ak yeneen ba tax na daf doon préféré bu ñëwee ànd ak ñoom tuuti rek duggaat ci oto bi dem waaye moo ngi ànd ak ñoom naqar bi di déggante ñoom téléphone boole ci itam di ci dugal alalam ak dooleem ci lépp waaye loolu itam ndeysaan ki nga xam ne moom mooy Lamine kenn xàmmeetu ko ndax ay jooy ak ñàkk maîtrise ci li nga xam ne mooy naqar bi dal ci kawam bala mu jigi sax isaak naan ko Lamine yow bett nga ma de vraiment xaw ma woon ne nii nga yambaree nii nga nii nga nii nga nii nga ñàkkee am maîtrise man foogoon naa ne ku dëgër nga ku mën a maîtriser nga lii metti na lool sa jabar ak sa doom métti na trop waaye nag da ànd ak dal xam ne góor nga yow boo defee nii ñun dañuy gën a am problème heure bi yow yaay seule personne bu mën a woyefal mbir yi ba mu woyef waaye Lamine mënta dégg loolu su jéemee xol bi du ko mën a dégg li waral loolu yëpp nag xam ngeen ko bu baax lu jar ñu ciy dellu Lamine xam na jabar ji dëgg faatu na métti na waaye xam na li làqu ci ginnaaw loolu yëpp te neexu ko benn yoon te xam na ne jabar ji du ko ko baal ba ilaa yow mi diin te yàlla sumborom lu jëm ci xeetu njaaloo ak yu nu mel lu jëm ci xeetu bàkkaar yu nu mel boo koy def day neex lool waaye rek ndeysaan musiba ak conséquence bu rëy la lay jural xooleel mbooleem ñi ko doon def ci histoire bi rek ko ci nekk bëri na lum la yàqal bëri na musiba bu mu la naroon a indil xoolal maman Khadija ba muy def loolu daanaka ci la njàngam yàqu formation bi mu doon def ci la ci la yàqu ci la àddunaam yàqu mu forcé ba tëdd ak cheikh moomu ginnaaw bi la ko takk gis nga li ci xew yëpp après du jar ñu ci ñëwaat Escart bi nga xamee ne bëgg naa def loolu guddi googu mu gisee woon Linda ba xelam takkali kook sagom bëggoon topp bakkanam def li ko jinne ji tere woon waaye gis nga bu defoon loolu ana lan moo ko ci noonu a fekk xoolal ki nga xam ne nag mooy Essa moom mi nga xam ne ki nga xam ne boog mooy Lamine moom mi nga xam ne moo nekkoon tailleur bi nekkoon ku sérieux ku silvisé koo xam ne ay caaxaan ak yu bari nekk ci woon waaye xoolal tey àddunam yàqu na yaa xeet sax ndax lu méttee ko dal loo xam ne ba muy sàngoo suuf du ko fàtte ndax lii dina ko mën a muñ ndax dina mën a dund woyaale ak lii yëpp métti woon na lool. ci noonu nag la xebaar ba siiwee noonu lañu nekkee ca la nga xam ne mooy ca dëj ba ci dëj bi coow li ak werante bi ak wax ji bari woon na lool ci mbokk yi ndax mbokki ndaw si mbir mi daf leen a yéem lool. dee dafa gaaw ak ñoom yëguñu sax bi ko crise bi daanelee même yaay ndaw si ba tax na ñoom doon nañ sàkku sax balaa ñoo suul ndaw si ñu def autopsie waaye foofu médecin yi nga xam ne ñoom ñoo doon suivre ndaw si ñoom ñoo confirmé ne ndaw si dafa amoon cardiaque jëkkër ji àndi ko fi cardiaque bi daal lañu la ñu gëm naki noonu itam yaay ndaw si ci laa xamee ne ndaw si amoon na cardiaque ba muy gën a nekk xale daan na ko daaneel mais gëjoon na ko daaneel noonu la fayin bi gëmee ne kon cardiaque moo ko yóbbu waaye nag Kajaak bi dañu daan gis souvent su amee lu ko naqari lool wala lu ko métti lool ci la koy daaneel mais lemin moom mun kenn mënta wax ak moom wala nga koy laaj lan nga wax sa jabar wala lan nga def sa jabar ndax Lamine wax dëgg yàlla situation bu métti ci la nekkoon ndax dëgg la soxna si jabaram la tey doomam la ëmboon te Lamine kenn xamu ko woon ci caaxaan ak ñàkk yërmande ci lu baax ak yërmande ak lu rafet rek lañ ko xamee woon ba tax mbokk yi rusoon nañ ko laaj dara noonu lañ jàppee ne xëy na cardiaque bi daf ko day daf ko daaneel rek xëy na ak ëmbam bi mën naa am moo ko daaneel ci la jaaree cardiaque bi daaneel ko ñu yóbbu ko hôpital waaye yaay ji moom mu ngi ñaari xel ne war naa am lu naqari ndaw si ndax souvent bu ko daan daaneel dafa daan fekk dafa am lu ko naqari parce que ñaaree nga am émission am lu la naqari dëgg dëgg dëgg dëgg wala ñu wax la lu la tiitar wala lu la bett loolu rek mooy mën a tax mu mën la daaneel ci yenn état yi waaye loolu yëpp nekkoon na loo xam ne daal lu doyoon waar loolu Lamine moom du wax ak kenn diiraawu dëj bi frère yi ñooy ñëw solal ko yére toog dend ak moom rek waaye moom dafa mel ni ku tàqale ko sagoom nangootu la wax ak kenn nangootu la lekk nangootu la naan ba ñëpp mujjoon ko yërëm lool kenn mënatul wax dara ndax Lamine dëgg la yërëm nañ ndaw si waaye Lamine ku ko gis xool ko tuuti rek faw nga jooy ndax gis nañ ni mu jeexee ci diggante bi nu mu changé ak nu mu tricé ku ko gis ak yërëm ko ndeysaan bi ñu dencee ndaw si ba saraxal ko jébbal ko boroomam defal ko saraxu ñetti fan mbokk yi taxaw taxawaayu rafet ki nga xam ne mooy mbokki jigéen ji ak ki nga xam ne itam mooy SK ñoom ñëpp bi nga xamee ne ñëw nañ am na lenn ci mbokki ndaw si ñoo xam ne sax dañ doon xalaat su sarax si jàllee ndaw si amoon na benn rakkam boo xam ne tolloon na ci am boroom kër ñu may ko lemin ngir def lu rafet ak bañ lemin di xalaat xalaat yu métti. na ngir bëgg féexal xolu Lamine waaye Lamine kenn ñi ma wuloon a wax ak moom dara ndax comportement am ak nu nangut a wax ak nit ñi danga koy nuyu sax du la faale Lamine daal ay magam jaaxle woon nañ ci moom lool seen sëriñ bi mu ñëwee ci ñaan gi wax nañ ko mbiru Lamine ba mu jigéen ndeysaan da doon jël Lamine di ko jox ay saafara muy naan ak di ko ñaanal ngir bëgg li ne ci moom deñ Lamine daal mel ni ku àndul ak sagom bi loolu yëpp weesoo ba jàll ba mu am ñaar jàpp ñetti fan sarax si jàll na ba ni ñëpp ñibbi nañ lenn lenn ci mbokk yi rek ñoo fa des lemin bëggatul a toog ci kër gi mu daal di wax Essa ne ko dama bëgg a génn dem sama kër benn nijaay bu sori maanaam tudd benn nijaayam boo xam ne mag la mu dem këram toog fa wala mu dem luyee fenn nekk fa magam yi ne ko waaye Lamine yow tamit Lamine kañ nga mel nii Lamine yow góor nga du jigéen lii yow mii góor yaa ko war a muñ yaa war a bësante ak sa xol gëm yàlla nekk ab jullit lu nañu yedd ko wax ko li nga xam ne mooy baati dëgg ngir mu delloo si dellu si xelam delluwaat ginnaaw tuuti waaye Lamine noo ko wax lu mu dégg de li mag yi wax bëgg koo dégg moom kër gi doyal na ci sëkk néeg bi nga xam ne fa la nekkoon ak jabaram fa la mbir yi doon xewee ruus na faa delluwaat te fa fanaanaan jabaru magam ji ci kër gi itam bëggatu koo tëg bët te mënta ñeppi gémmiñam wax yooyu daal nekk na loo xam ne doon na ronger xolam di ko dagg di métti ci xolam te mun mënutoon a des ci kër googu noonu la sàkkoo ci magam bi ngir mu génn kër gi mag ñu ne ko laa léegi boo génnee kër gi sa liggéey bi ah sa sa sa sa chambre bi nga defar ba mu baax ah nekk fa nekkoon fa yow sa jabar léegi yow sa jabar yaa fi war a des ci ko ñaanal nangam nangam lu nañ wax ko mais mënuñ ko wax lu mu dégg mënuñ ko wax lu mu dégg jamono yooyu ki nga xam ne mooy jabaru Issa Diagne moom day tëju néegam rek moom nangut te génn moom itam comportement am bizarroon na lool par rapport ak yeneen jigéen ci kër gi maa Khadija ak jabaru moor bi ak ñeneen ñi ñoom dëgg la doon nañ jooy doon nañ am lu leen naqari mbirum ndaw soosu yërëm turowoon na ci ñoom lool waaye nag taxul ñu toll ci yenn état yi moment moom mënatu dund lu ko jaaxal ndax defe naa li jot a dund moom bu dee tërës ak lu métti rek jaar na ci ba jàll moom waaye ki nga xam ne mooy Lamine moom buñ ko dimbalewul tuuti rek mën na tàqale ko sagoom ndeysaan noonu nag la Lamine di génnee di dox ci mbedd yi maanaam day dox di dox di dox ba dem fu sore sore sore su demee dem ci benn keppaaru garab toog fa toog fa di xalaat di jooy di xalaat di jooy ba mu yàgg mu daal di fay nelaw bu fa nelawee ab diir yeewu gis ne moom ci mbedd la toog gis ay xale sëm ko naan waaw kii kan la kii xanaa dafa dof bu siggee xool leen xam ne fi mu toog wóorul mu fay toog mu jugaat continuer aw yoonam delluwaat seen kër su ñëwee magam yi laaj ko ñoom Issa ne ko waaw lemin foo nekkoon Lamine ne cell buñ ko ne ko waaw Lamine doo wax ak ñoom xanaa yow lañuy waxal mooy ne dama génnoon doxantu ji rek jamono yooyu yëpp ki nga xam ne moom mooy jabaru Issa ji dafay yërnu ci fenêtre am bu déggee lemin di wax ak kenn ci wax kër gi ndax moom xamatul fan lay teg tànkam boppam na. te bopp bi jaxasoo na diggante bi moom itam jeex na tàkk na xalaat boo xoolee karawam yi dañ ci gis ay pep pep bi jaaw dangay xalaat baaxul mën nga tëju sa néeg di xalaat loo xam ne da ngay jaaxle doo am ko waxtaanal doo xam ko la dëfal doo xam lan moo lay sulaase te yow doo naan kat doo tuxkat kat mënoo naan mënoo tux mënoo def dara da ngay di xalaat di jooy di xalaat ba jeex tàkk waaye jëkkër ji nga xam ne mooy Issa nee na ko yow day sama soxna si jaaxal nga ma trop trop jaaxal nga ma yow depuis soxna si gaañoo ba léegi jabaru Lamine ji danga mel ni ku taxale ko sago dëgg la jabaru Lamine ji ku baax la sa waay la woon sa xarit la woon Lamine tamit sa xarit la mais nag bu mu tax nga nga bàyyi sa bopp nii dax am ngay njaboot say doom a ngi fi ne ko yow man mosuma gis nga toll ci état bi nga toll nii ba ma xamee ba léegi ñaata at ñuy sëy xoolal sama papa bi mu génnee àdduna xoolal li fi xew yëpp rek wala sama sœur bi bi jëkkëram génne àdduna lépp fee la fekk lu ci nekk dëgg la métti na jooy nga mais defoo comportement même meloo meloo meloo ci état bii nga nekk nii maanaam boobu nekkuloo woon ci état bi lan moo la yóbbu ci état bi yëpp ah vraiment bëgguma gis la ngay mel nii bu doon sama sago daal nga fàttali yëpp te saa boo jullee nga ñaanal ndaw si ñaanal Lamine da nga nekkaat say activité jëkkër ji ndeysaan moo ngi koy defal di ko dellu si xelam di ko jëm a jàppale waaye ndaw si mënut loolu ngoram mënut loolu jomam aussi mayu ko loolu ndaw si day mere boppam day jéppi boppam day xool boppam ba mu yàgg dee sax gënal ko dund ndax la mu def ak la mu doon def ba lii yëpp fekk leen ci ca yàlla suñu borom. am na yenn jëf yoo xam ne boo ko xasee ba jëf même su la sunu borom jéggalee sax sa àdduna dootul neex. alaaxira ngay gën a xëcc ci àdduna dee moo lay gënal dund ndax doo amati benn espoir pour desaat de dund ndax jëf yi ñaaw na salte na façon boo xam ne xamoo nan ngay def rawatina nga tooñ koo xam ne xam nga ne xel du la ko mus a baal du la ko baal mukk ndax waxtu wa nga koy tooñ te waxtu woowu ca la faatoo te mu wóor la ne dee mu dee yaa ko rey boole ko reyaale doomam tooñ ko boole ci nag loolu nekk na loo xam ne Jawhara Issa Dieng mënu ko woon supporter ci biir xolam ndaw lu metti lu métti lool sax waaye lii yëpp rek pexem kumba jinne la kumba jinne mii sonal na leen sonal na leen lool sax ndax lii yëpp ay pexem la ndax ki nga xam ne mooy Lamine doon na nekk di dund ci jàmm ak salaam amul woon benn jafe-jafe bi nga xamee ne xale bu jigéen boobu nekkoon jigéenam jigéenam boobu la demoon pour dimbale ji ko ci kër gi mu doon sëy guddi googu mu génte xew-xew yooyu ci famille boobu famille jëkkëram boobu nga xam ne bu guddee ñëpp dañuy dem kenn kenn dootu fa des bu mu géntee loolu kumba jinne ñëw menacé ko doyoon na sëkk waaye li ciy gën a yéemeeti mooy ndaw soosu ko ñëwaloon ci palaasam bi ba mu ko gisee mel ni ku taqale ko sagoom ndaw soosu dëgg la nit la koo xam ne ca marché ba la nekkoon doon liggéey doon jaay mus na ñawloo kenn ci booy yi nekk ci place ba waaye kumba jinne jinne ju am puissance la dafa soppaliku jëmu ndaw soosu ñëwoon ca place ba fexe ba xemmam loo lamin boppam fexe ba gént loo lamin doon bëgg a sëy ak moom fexe itam ba lamin dugal ci xelam meex li nga xam ne mooy faiblesse su sëy maanaam mbirum sëy ba loolu des ci xelu lemin fees ci dell loolu moo yàqu dundam ba indi ko ci situation bi yëpp loolu lépp ku mujj na la kon ndaw soosu lemin doon xool ak di ko xemem ba mu ba mu niroo ko ak jabaru Isaa yi niroog jabaru Isaa yi ndaw soosu nga xam ne moom la doon wër te mënatu koo gis ndaw soosu nga xam ne moo tax lii yëpp dal ko ba mu takk jabar jàpp ni situation yi dina changé ndaw soosu kumba jinne la kumba jinne am na capacité doon melokaan yu bari comme ni mu doon soppalikoo nekk Sali noonu la soppalikoo doom nekk lindaa moom kumba jinne moo fa jaar un mois maanaam benn weer ginnaaw bi jabaru Lamine ji faatoo lemin doon bëgg a dof ci xalaat yu bari yi ak naqar gi ak kersa gi ak gàcc gi loolu yëpp mag yi di ko jàppale ndax mbokk am solo la ci nit ndeysaan fereeram yëpp di ko jàppale ba ci badu mu ndaw mi ak mama Xadija ci nekk koo xam ci ab sëriñ wala loo xam ci lu baax yaa ngi koy defal ngir xelam dellu si moom lemin di daan tëju néegam nangutul a génn noonu ñu koy jàppale di ko wutal ay sëriñ Lamine bu xëyee dem waxtu yi nga yi nga xam ne liggéeyu ko sax bis yooyu du nangoo toog ci kër gi day génn toxi ay yitteem wala dem seeti benn xaritam ba guddi mu doon a ñëw ndax yendu ci kër gi di gisanteeg jawaru magam ji bëggatu ko. waaye loolu yëpp teewul mag yi di ko jàppale jamono mag yi sax ginnaaw bi doon na porter ay malaat ne dafa feebar ba dem seen kër toog fa yóbbu doomam ju ndaw ji def fa presque ay bés yu yàgg jamono yooyu sax lemin xawoon na nekk à l'aise noonu itam lañu ko jàppalee moom lemin ba xelam tàmbalee dellu si muy tàmbalee dem di liggéey di muñ nag di jégalu yàlla fu mu toll di yaakaar ne ni muy dundee bu ko continuer fii ay bis wala ay weer amaana lu nekkoon ci moom dana dëñ te dina changer dundam dund beneen dund ndax li ko daan sonal muy foye gim naan foye boppam gis na ne dëñ na depuis jabar ji faatoo moom maanaam naqar googu dafa mel ni dafa dañaale mbir moomu ba tax na na mu daan def nga xam ne mënul tëdd tëddu foye boppam loolu dañ na ba set wicc mu mel na meloon santiratul dara ci wàllu sëy moo ngi dund dund ko tey di julli waxtu juróom di jéggalu yàlla doon bëgg a changer doon bëgg doon Lamine ba woon ndeysaan waaye nag malheureusement ndax benn guddi boo xam ne julli na jàng lu bari ci ay alxuraan yor kuusam ñaan jéggalu yàlla sunu borom jéggalu sunu borom ndeysaan guddi googu dafa def bépp xeetu jëf ju baax joo xam ne mës na ko dégg muy naafila ak wird mu def ko ba daanaka trois heures jàpp quatre heures jot na muy door a tëdd jamono yooyu nag xelam dal na xoolam féex na mel na ni jëf jëm jëfoon te ay njuumte doon ku ko indil ak seytaane ak mbir yu bari mel na ni suñu borom moo ko koy bëgg a jéggal nag waaye guddi googu bu mu tëddee dafa nelaw delloo buntam jékki-jékki gis néegam leer naññi bi néeg bi leeree naññi mu daal di toxañ ay bëtam jug ci lal bi taxaw xool gis jabaram taxaw ci buntu néeg bi yor doomam sol yëre yu weex tàll la mel na ni dafa wasin am doom yor doom ji doom ji takk ripp ak deret jabar ji di jooy Lamine naan sama jabar ay sama jabar ñëwal nii sama jabar baal ma baal ma li ma la def tàmbali di wax naan ay sama jabar sama jabar baal ma jabar ji ne ko baal naa la ci xol bu sedd Lamine kontaan jabar ji ne ko lépp loo ma defoon baal naa la ko ndax bu doon sa coobare doo ko def waaye nag ah yaay doon sama wétal de fi ma nekk wéet naa fi lool man ak sama doom waaye nag ginnaaw bu ma lay jéggalee te ragal naa yàlla jéggal la di nga ñëw nag wétal si ma fii ma nekk mu ne ko nu may ñëwee wétal si la man sax bëgg naa soo bëggee sax ma ñëw wétal si la ndax man nga baal ma rek laa bëggoon noonu la jabar ji daal di seey dem waaye ba jabar ji seeyee gisatul jabar ji bu taxaw naan sama jabar anamu ana nga ñëwal bul dem di woo turu jabar ji noonu la jékki-jékki gis kumba jinne taxawaat ci kanamam daal di xaqataay ree jamono yooyu kumba jinne moo ngi yor benn xeej xeej yi nga xam ne moom la ñuy yor ci ay guerre ak ay xeex xeej yi ñuy jamante di ko reyante moom la kin kumba jinne yor ki nga xam ne moom mooy Lamine bi mu gisee kumba jinne rek daal di mer ne ko yow mii yaay ku bon li ma dal yëpp yaa ma ko yóbbee noonu Lamine daw rek bëgg a song kumba jinne ngir xeexak ak moom ku ma jënd sànni ko xej bi ci gémmiñ bi mu jam ko ba daal di sar ci cuukeel bi Lamine daal daanu dëggantaan Lamine daldi di faatu noonu mu daanoo ni groupe daanu faatu mu nekk loo xam ne daf ko dikkaloon comme saaru gént waaye dëgg la ci moom noonu la Lamine ñàkkee bakkanam daal di wàcc liggéey ci néeg bi nga xam ne ki ko doon indil ndékki bu mu ñëwee fëgg kenn ubbili ko bi mu yàggee la frère yi ñëw dajji néeg bi ñëw fekk ko Lamine daal di wàcc liggéey bëti xulleeku mu daanu ci suuf daal di mel ni ku siiñ mel ni kuy reyee ndeysaan jamono yooyu bakkan baa ngi génn deret mais boo xoolee xar gi dafa mel ni da ngay gis koo xam ne da doon reyee muy war a màndarga ku texe ndeysaan noonu bi ko mag yi gisee rek du ñu dal di yuuxu Lamine ku nekk di yuuxu tur Lamine mu nekkoon nag lu doy waar lool. fii la ñu yemale épisode bi ñu jox leen dig daje épisode 19 bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. daw leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production. ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm àndil jamono bu nekk. seen production Islam ca kanam.